asalaamaaleykum la famille déggee naa leen j'espère que yéen a ngi si jàmm bu baax a baax man Fallou maa ngi si jàmm kon yéen da ngeen war a am jàmm yéen ñu may seetaan à chaque fois yàlla na yàlla dafa sutura xéwal ak xaalis bu bëree bëri bëri sama gaa yi jamay fay bale na Assemblée national comme bale boobu mu yoroon ci campagne bi mooy wane que ni Diomaye mi ngi raxas dëkk bi mi ngi defaraat dëkk bi ñii kontaan nañ ñii mer nañ yow fan nga bokk si ñu kontaan wala sama gars yi tey on va faire une vidéo sur ak Kati parce que man l'histoire bi dafa histoire bi nekk di perturber sama moyen bi est góor yu mel ni Arona ñi ngi am ba léegi wala lii est-ce que nekkul série kese parce que damaa xam nan ngay amee gel yàgg sa gel ngeen di génn nga dem ba si biir nga xam que ni yow mi sa gel bi dafa ëmb exam moo ko ëmbal ne ko dinaa la suturaal dinaa nekk papaay doom ji ba pare dinaa la tax est-ce ngi am ba léegi balaa vidéo di commencer mais si demee la vidéo abonnez-vous bu leen fàtte yéen i aaroon na fan la yëgee que ni kat yi dafa ëmb ak réaction ñu jàngat ñu waxtaanee ko daal. pare ma wax nga sol sol robu guub. dina ma jaaxal peut-être mu am. fii la fii la xoolee nii yëgee nii dafa. kat yi c'est quoi ça? Un test de grossesse. deux bars. on est trois dans la maison. aaroon na aaroon na muy kat nopp na kat yi nag. kat yi la la. aaroon na. daa ëmb. que je Tu es seule à vivre dans ta maison, on est d'accord. Tu es dans ton salon, posée, toute seule, avec les ah, larmes aux yeux, comme ça. que tu as Il a personne. Donc c'est à toi. Attends, je ne peux plus expliquer. Expliquer quoi est que tu de perturbé ou je sais même pas quoi te dire. Comment ça, là, là, expliquer Qu'est-ce que amun yaa muntasim Haroun yërëm naa ko sax ndeysaan yërëm naa ko attends attends attends moom ay film rek def na arrête ce que tu fais waaye lii moom ko yaa ngi nekk dans la presse kati bu ko moomul ko ko moom ndeysaan quelle déception kati yow yaa moom lii j'ai pas touché à toi, j'ai jamais touché à toi. c'est de D'où vient ce putain de test Waxal ak man ngir moi, gaaw est waxal waxal Je Ndeysaan. Abdoulaye la. Mais parle-moi Parle-moi Pourquoi le ah, man aïe, bu man bama yenn siis bi Abdoulaye. Abdoulaye la. attends attends attends eh c'est qui le père. Abdoulaye moi moi qui c'est Abdoulaye. tu te fous de ma gueule. Oh, tu te fous de ma gueule. toi tu te fous de ma gueule. Abdoulaye la depuis lors je te donne et mon cœur et mon âme et tout ce que j'ai de plus fort je te donne C'est comme ça que tu m'appelles Affaire du rap Pas affaire pièce Je ne jamais trompé. Tu m'as jamais trompé Tu m'as jamais trompé Je jamais trompé. Ah non, d'accord, il est que tu m'as jamais trompé. Tu m'as jamais trompé. Abdullah, il m'a piégé. Wallahi, il m'a piégé. كاتب لي ارون دفا ام سما خل بالله والله تعالى افا سيري بالله دي دم laa ne Abdoulaye ak biiral série bi ku fi ëmb Abdoulaye biiral di <laughs> Abdoulaye biiral ñëpp léegi nañ xool ah, ah, ah, Abdoulaye nan la tegee dil kati ba ëmbal ko mais man pour man quoi ni nga ko tegee dil ba ëmbal ko dafa yomb quoi parce que yow nan ngay amee yow nan ngay amee far yaa ak Abdoulaye ngeen doon génn Abdoulaye nga xam ne fu jaar baay fa problème ba yow sa wax nga ko ngay xoole ba Abdoulaye di la teg dil di la ëmbal nañ seetaan Abdoulaye daal fii la ñëw. tuuti bàyyi dof dof lu ne ko damaa ñëw jël sama dose. xam nga bu baax ñëw jël sama dose. dose de la ko wax dose. que tu as toujours été ma préférée. xam ñu def nga jóg ci néeg bi fàttaliku jamono. Hmm? yow dose lan Abdoulaye est-ce que ça va chez toi. xam nga maa yow xamoo kuy kaf ak yow. jugal. fii dafa ko waroon tàq ci kawam. bi mu ko waxee dose. dafa waroon tàq ci kawam. saa saaga ko rajaxe kaas yi. xoola mais Abdoulaye genre Abdoulaye foo leen fekk ñu ngi doxantoo poson parce que poson na xale yi jigéen ñi xoola génnee na poson bi ci poos bi poson nag na ko Abdoulaye sonn na nag <laughs> billaay Abdoulaye sonn na nag poson na na ko xoolal Arona wan ma mi ngi ñëw bëgguma la toroxal jóge nga dem oh, relax Kati relax Ok. Tu fort sérieuse. je sais que ah, tu ne penses pas que mon tu nous présentes comme ça on va enterrer la hache de guerre. mais est-ce que tu t'entends parler. Hein? psychopathe de. psychopathe C'est un psychopathe. ça va me prendre juste deux minutes Abdoulaye Regarde, oh fait que partenaires lii faire des séries d'événements et je ne t'apprends rien en te disant ça passe ne pas comment dire je ne peux pas passer par toi pour que le contrat puisse se faire signer c'est tout passer par moi oui je suis vraiment désolée man facilitatrice

Hmm. Fais fait chaud, ok..! Ça est content, non On décorer. Oh, il fait chaud. J'ai mal à la tête. Bon, marie vais Ouais. Ah, on est on est Abdoulaye Abdoulaye Abdoulaye mi. Abdoulaye mi, pour pour Je Abdoulaye. Abdoulaye xool googu siin bi Abdoulaye bëgg nga jigen Abdoulaye yow kese xaralu xarafaluñ la. Abdoulaye yow kese xarafaluñ la. xaw ma sax nu mu demee je te jure je me rappelle même pas ce jour-là t'es même venu ici. Abdoulaye daal ñu la nekk ci série bi daal. ton histoire elle est banale tu te fous de ma gueule là en fait Quand tu te fous de ma gueule non lii yëpp mënul nekk dëgg. ndeysaan non lii mënul nekk dëgg. moi. je te le jure dama la fen je te le jure que dama la bëgg mënuma la fen Arona. Oh. li ma la wax loolu moo am. Abdoulaye daf ma piégé bu dee da nga bëgg a bàyyi tamit nag bàyyi ma amul problème mën naa comprendre man man maa la tooñ Мандинаже да sama process man kasi. Wala aron sa bagay mandin ko man yung reklamo, yung reklamo simple. Aron na simple. Pero kaya bale. Aron na simple. Simple ko. Yaron daw na yakdes. بال نخو خل بال نخو دغاي بال تكل تكل شنو أمم. بال نخو ميري الله خلي جيجيني خل انت ارونا نين خامني غور ييب يامونو Abdoulaye yàq na sama àdduna. góor yëpp yemuñu gis que ni Abdoulaye mel Et ni Arona mel ça fait diamétralement opposé ak man je ma mel te xamugoo leen. arrête de pleurer écoute. ndeysaan écoute. on va prendre soin du bébé ensemble. baal na ko. je te le promets on va l'élever ensemble d'accord arrête de pleurer. voilà on va l'élever ensemble. xaw ma léegi avec laa lay s'il te plaît pour la vie je serai là pour toi je vais pas te tomber regarde non, non non non non non non non non non s'il te plaît s'il je vais faire ça pour toi d'accord on marche ensemble on non, ensemble comme on a toujours d'accord viens là non, amul man non, amul mais amul non, non, non, non, nga ëmbal na moo ëmbaloon jabaru maas ñoo ëmbalaat jabaru aaroon te Abdoulaye maa leen ko wax de nañ seetaan dina ëmbalaat keneen ci bi mais yéen lii lan ngeen si jàngat que ni góor yëpp yamuñu góor bii mën na ñëw baax bëgg la sincèrement noo mënti mel sa yoonam nekkul ci démb tey benn góor bi nga xamante ni moo mel ni même genre Abdoulaye di wër di ëmbalaate di dorogalaate moo tax képp koo leen nekkal di génn ak moom nekk leen ak moom sincèrement sincèrement bu leen tax mu yàq wala dara mais lii man góomu ne am na quoi dans la vraie vie mais loolu nekkoon vidéo bi aimé partagé ba beneen yoon wa illal li xaar yàlla ma yàlla may jabar ju mel ne bu mën a bëggee ni aaroona amin see you <laughs>